you. jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamantene rek yéen nañu koy topp ci site internet bi di Buzz 24 Sénégal li gën a ci bopp xabar yi nak dañu koy doo rek wàllum njuuj njaaj ak luubal koppar kii di Marilo mi nga xamantene rek ñu koy topp ci lu toll ci 600 millions de francs CFA boobu les procès nak daal dinañu koy dàq rek ba 7 novembre mu nekk mbir mu yees moo xamantene rek moom moo daal di feeñ nak ci kii di mbirum Marilo bu ñu sukkandikoo nag ci les échos mi joxe boobu les xibaar niki tey ci aljuma ji yemoo ko juróom benn fan ci weeru septembre ci atum 2024 ci dossier bi nga xamante ne rek euh, daal di woon nañ koy woote nag ci kanamu baar niki alxemes ci foofa ca juge bu correctionnel bu ndakaaru nag yëfi daal daal nañu koy dàq rek ba 7 novembre bu ñu sukkandikoo nag ci ay avocat ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci boobu les sources ma ngay daal di xam ne rek que ne kii di Marie moom moo fi nekkoon nag soxna su ancien ministre de la culture di Aliou Sow la ñu koy toppee mooy njuut njaaj ak luubal koppar lépp luy abus de confiance mu toll nag ci 600 millions de francs CFA yoo xamante rek moom la koy toppee ginnaaw nag bi ñu ko tegee la xocc ab plainte boo xamante ni rek ab commerçant buy woyoo ci turu euh, Serigne Fall moom moo ko daal di woon plainte waaye nag lam ko doon toppee rek moo di def ko daal di euh, luubal lu toll ci 47 millions de francs fa ci mbir mu nu mel nag ginnaaw plainte bi nga xamante ne rek defoon na ko ay nit tamit ñëwoon nañ rek di wax mbir mu nu foofu ca division d'investigation criminelle ñoom seetlu rek mooy wàllum njuuj njaaj du nag dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar Audio